di rafetlu également DG nee na dès l'instant que waa Tour du Fleuve ñëw nañ wala bokk waa vélo club Abdoulaye Thiam ñëw nañ ci moom seet si ko pour mu présider pour mu nekk parrain wu journée bi parrain wu Tour du Fleuve bi amul hésitation bu ci def parce que yàgg na leen suivre te xam na li ñuy jariñ ci réew mi ak li ñuy def ci réew mi ci loolu ci la jël lépp li nga xam ne am na ko ci moyen oto wàllu ambulance ambulance baa nga nee taxaw ONAS moo ko joxe ci ndigalu directeur général am na camion boo xamante ni citerne ndox la yore mm-hmm. mu ngi ànd ak ñoom fu ñu soxlaa aussi mu am lu mu ci def am na beneen pick boo xam ne mu ngi ànd ak ñoom mu ngi ànd ak également un élément de la daaf mu yore lépp lu jëm ci carburant oto bu soxla carburant mu lijjanti ko donc yemul foofu mu yëkkati enveloppe bu takkoo takku du yem foofu incha allah bis bu ñu dellu see Dakar dana daje ak ñoom am nu mu deflante ak ñoom. ci loolu ñu ngi sant également population yi nga xam ne yëpp Tour du fleuve traversé na leen muy nit ña fa nekk muy sëriñ yi muy autorité administrative yi. ñëw fii ci Louga. fekk si ki nga xamante ne si mooy kan mooy gaynde gii ñu dese na fii. waaw ndax olof Ndiaye nee na olof Ndiaye nee na. Tour du fleuve nag lu ñu gërëm Mamour Diallo doy ndax Mamour Diallo daf ñu fekk fu ñu nekk kenn kenn faalewuñu kenn faalewuñu mu ñëw fekk ñu fu ñu nekk jox ñu loxo ni damay dugal sama loxo si tudd fleuve kon Mamour Diallo yal na yàlla guddal fanam Mamour Diallo yal na yàlla guddal fanam su may wax si Mamour Diallo damay waxee aal kon président Mamadou Mamour Diallo bu amee trophée bu mel nii ñun ñi nga xam ne ñoo ànd moom di ko liggéeyal dafa laaj rek ñu jàppale ko te wax li nga xamante ni moom mooy réalisation président Mamadou Mamour Diallo président Mamadou Mamour Diallo mooy nit koo xamante nii euh, waa Louga ñu fi doon taxawaalu 90 pour cent yi mën naa ne Mamour Diallo fexe na ba li wute xëy loolu mooy ku bëgg ab dëkk noonu ngay def président Mamadou Mamour Diallo fexe na ba Louga assainissement bi ak feneen fudul Louga ren ren ONAS liggéey na ci liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la loolu président Mamadou Mamour Diallo moo ko liggéey képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ONAS war nga dugg biir ONAS war nga gis liggéey ONAS war ngaa xam ne Mamadou Mamour Diallo liggéey na ONAS képp ku demoon euh, daaw ONAS boo demaatee ren ONAS xam nga président Mamadou Mamour Diallo moom mooy kenn teraanga ju mel ne président Mamadou Mamour Diallo li mu ñu liggéey ci dëkk bi di ko liggéey président Macky Sall président Mamour Diallo joxoon ñu ku mel ne Amadou Ba ñun waa ko dañoo war a takku fexe ba président Amadou Ba jël réew mi.